ma wax ma wax la benn affaire bu njëkk waaw kay yàlla laa gëm waaw ak alquran loolu moom dëgg la tey kenn jaraluma ci kaw Sénégal mm-hmm. may wax loo xam ne du dëgg ci ma xam ku ne la jaar na ci baal waaw jaar na ci gay waaw non di taxaw fu nekk di ko wax sooy seetaan sama vidéo dama koy wax di ko nettali ci conférence waaw yàlla def ma ma dem ba nekk taalibe baay dellu gannaaw waaw li ma doon def yëpp fàtte ko mm-hmm. kon kenn jaralatuma may fen ci kaw adduna alors gis nga Ousmane Sonko mhm. ma Pastef waaw bokkuma Pastef musuma bokk Pastef musuma gis Ousmane Sonko waaw xaw ko tey xaw ma ko ëllëg te su far di am mhm. xarak Adji Sarr moo gën fuuf gis mhm. wallahi tallahi barka alquran musuma koo gis bët ak ku ma ko wax ko gëm Mm-hmm. Adji Sarr nekkut sama taaliba boo xam ne dama ko ràññee wala ma gis ko mm-hmm. soo ko laajee moom dana la ko wax mm-hmm. mais ñëw na ci sama formation Shababul Fayda fekk fa sama commanda ci munde mu bokk ci formation li tax ma défendre ko dama dégg nit ñi taaliba bàyyi bugg koo ma xam seen waa kër parce que cousine a Adji Sarr laa doon sëy xamoo ko bis ni ko tey doon sëy waaw mu toog aji saar ma dégg ñu bugg koo bedd ma taxaw ne leen taalibe baay la mm-hmm. défendre ko ci loolu te loolu tey maa ba tey ba suba te mm-hmm. mun ngaa nekk jullit mun nga nekk lépp nekk beneen yëpp waaye man waxuma ne aji dafa bon wala dafa def lu ma njëkkee man mm-hmm. ma wax la ko billahi wallahi tallahi su nga xam nga audio dafa garaaw waaw mais bis boo ñëwoon Dakar yow ñu toog waaw billaahi wallahi tallaahi su fekkee ne lu ma lay wax bu dëgg mhm. lépp lu nekk yàlla naa ci gën a yées dañoo waxtaan mën a ko aji mhm. dama laa bëgg a protéger delloo la ci société bi mhm. ma téye la wan la ne la nii fuñ la bëgg a baaxul fekk na boobu wax nañ ci wax ji ba pare bam xamal ma ma wax bay jooy maa ngi jooy yooyu tamit su ko neexee moom mu ne xam nga moom toog na ne leen mhm. waxut ak man dara loolu daf leen ko gëmloo ci dëgg-dëgg waaw waaye yow xam na ne lu ma la nangoo jël di wax ak yow nii nangu jël di wax ak jëndu ma la de mais damay wax te yàlla tax te yow mal xiyaam am na ndax xam nga man sax moom jënd ma yómb ndax man homme de devoir laa du ma def ci caaxaan du ma def ci tappale xam nga xam nga dafa am lu waa lu mu wane waaw tey man audio yi su fekkee man maa ko génne direct man droit la waaw man lay man lay yoon bu toog dëgg wala du dëgg xam naa li nga wax kay merci beaucoup mais audio yi triché na parce que fa ma tegoon ñuy déglu am na ko am waaye dama laa bëgg a wax na la hmm. man su fekkoon ne mën naa ñëw ba Casamance billahi wallahi tallahi barke alquran musuma ñëw Casamance billahi wallahi tallahi damay ñëw teg ko ci sa nopp nga dégg loo xam ne su fekkee ne yow jullit nga Mhm. nga gis ne li ci dee Sonko daf na ma am na vidéo Sonko ma ne ko su fekkee ne Sonko def na la dara nga am preuve suba suba ma tëj Sonko mhm. mu taxaw moom moo taxaw nettalil ma li ma lay wax nii danaa la ko wax yow nettalil man kay maa ngi lay dégg daf na ma mhm. dama ne ko Adji Sarr ba xamee ne lii yëpp c'est faux te yow mii nga xam ne yaay nday yi mbilli bi te jëriñu woo lii su la neexee nga arrêté ko nga déglu su la neexee arrêté ko mu ne ma ma ne ko te yow nga xam ne li yëpp c'est faux mu ne ma attends attends xaaral sax suba dinaa oo euh, France Alain Gueye ki ngay wax noonu ndaw soosu mhm. ma tiital leen mhm. soo bëggee phrase boobu mun naa la ko yónnee ba nga xam ne lu may wax du ma du ma fen man kay man li tax ma nangu laa soral la fan yi yëpp man nee naa la dama dul dox ci dëgg bàyyi dox dul dox ci caaxaan bàyyi merci beaucoup merci beaucoup kon mu wax ma ne ma France Alain Gueye mm-hmm. dinaa ko oo tiital leen parce que ñii dañoo yaakaar ne un petit gami bu fi nekk ay doomeeraam lañ ñoom ñëpp seen nguur gi la ñuy bañ mu daanu moo tax ñu téye man nii du ma fontoo waaye lépp dina leer ak yeneen tudd sooga nag tudd ay kilifa man kay maa ngi lay déglu bu baax waaw mu tudd ay kilifa xam nga man Baye Mbaye man Baye mbay xam nga lu tax ma nangoo waxtaan ak yow nii saabu gaa saabu yàgg nii mm-hmm. man damaa bëgg dox ci dëgg man si dëgg rek laay dox. man gis naa ne sañ bi ma am ba jóge Casamance ba Dakar di protéger Adji Sarr te joolaa yi fii ma dëkk ak ñoom te ñu mënulul ma tus. Mhm. dañ maa xam. Mhm. kon bu ma ñëwee di waxtaan ak yow man damaa bëgg lépp lu ci lëndam mbay mbay man boo ma ko waxee nga xam ne man maa la gën a nekk soldaar fop man sama dund bi. lu dul dëgg bu ma ci dox. dëgg la loolu laa lay bëgg a wax léegi beneen audio bi beneen audio bi. Mhm. mu ne ma est-ce que xam nga ne Mamour Diallo moo tëgg lépp. ma ne ko kan Mamour Diallo. Mhm. mu ne ma waaw ma moo moo wax ah, booy bu sant mbay nu mu tudd fii mbay Amet Amet Mbay moo moom ne ko mhm. am na benn xale boo xam ne les gars dafay nekk ak moom rek léegi Mamour Diallo oo ko am na ku ñuy wax maître Sow moo ko bindal rek la ma wax Samba Sow la tudd waaw waaw moo bind ci loxoom jox ma ko loolu yëpp dana ma ko jox ma téye ko denc ko. Mm-hmm. mu ne ma si lañ ñëwee ñu ne ma jëlal jëlal euh, jëlal su gaa bi ñëwee fii. Mm-hmm. nga jéem a am superman. mu ne leen waaw superman mu ne leen pourquoi ngeen may wax loolu est-ce que yéen su fekkoon ne seen doom la est-ce que di ngeen ko wax. Mm-hmm. si ko gaa yi jëlee papa mu ne waa léegi garaawul après Mamadou Diallo moo leen indil oto. ñu mm-hmm. dugg ci moom ak booy bu sant mbay mm-hmm. après demoon séesewu la wax man man fekkewu mm-hmm. moom moo wax waaw yaa ngi dégg mu wax loolu te wax na ci biir vocal yi wax ma ba ma li ma lay wax nii sama ñoom papa sax xamuñ ko ndax maa moom dañoo rusante kenn xamu ba nag man nag dugluwuma ci yàq Adji Sarr wala yàq Macky wala yàq man affaire la waaw waaye man dafa am gëm-gëm bu nekk ci sama bopp bi ma travail mhm. mënumaa toog gis ni quatorze dee nañ mhm. xaw ma sonkoo rey xaw ma gouvernement xaw ma ku ci rey daal affaire état la mhm. ma toog sama conscience ma xam lii am na luñ ma nekk loo xam ni complot ma toog di ci bàyyi sama xel nii di ci noppi kon man su ma dee tamit safara laaj te bàyyi ñëf su boppam laa waaw billaahi su taxawoon wax ma ni mën a ko dégage ndax man yàlla rek laa gëm te sama àjjana moo ma gënal sama àdduna ak lépp lu nekk si biir xam nga gars yi ñu ngi wax xaalis mhm. su xaalis la laa ci mhm. yaakaar naa war naa mën a dox dem ci kilifa yi mhm. ne leen di dee moom laa amee xanaa comme danaa diil ak ñoom man musumaa laaj àddina musumaa sufi benn taalibe mënu laa wax ne la mus na dajale Mhm. lépp lu ma am dama damay takk sama daal yi di dugg koor di dugg marché di jaay di def lu ne mhm. pour am lii mooy wax ji waaye nag xam naa ni ba ma ciy dugg nit ñi ñuy may saagaat yooyu yëpp dama koy anticipé ndax maa dugg ci coow ku dugg ci coow da ngay nangu mhm. ndax ba ma ciy dugg tamit xam naa ne li ma ciy fekk tamit te pare naa ko te yàlla rek sax lii mooy wax ji du leneen jubluwuma pour toroxal kenn nee naa leen nañ leen waxtaan suñu biir waaye waa affaire yi ñoo toog di bës di bës di wax loo xam ni dara wóoru leen ci ba démb sax El Hadj Diouf maa koy seetal soo bëggee xam ndax lii dëgg la wala du dëgg gis nga ngoone bu seen bës waaw journaliste ngoone ngoone déglu na ko ba njeex mm-hmm. soo bëggee dégg dëgg ci mm-hmm. nekk Cissé te mu nekk 7TV xaw ma Sénégal set mhm. xam na ci dara ñi ci xam dara ñi ko xam ne amuñ ko waaye dégg nañ ko naa la gis nga El Hadj Diouf mhm. may waxtaan e yow noonu laay waxtaan ak nekk damay dem këram le dix huit mars di muy def mhm. conférence de presse le dix huit de kii bokk moom ñoo toog café de Rome gis nga yàlla mi ñu xam na ni ñii jege Adji Sarr ñëpp dañ ma dañ ma def confiance parce parce que man dañu gis sama mais man nag dama dox ci lu lëndam Baye Mbaye boo déggee gisee may wax ak yow nii mm-hmm. boo gisee may wax ak yow nii mm-hmm. dama dul dox ci lu lëndam mm-hmm. moo tax jàpp naa ne bokk naa ci ñi la gën a sonal ci semaine bii ci message ak kii bi ndax man dama bëgg a xam man dama def soxla xam bu ma dox ci lu lëndam moo tax billaahi wal lii lii ma dégg nga koy wax nii man ma am ay preuve yu leer leer nii la demee boobaa nga xam ne Baye Mbaye man maa la gën a weex su la neexee waaw su la neexee xam nga bu Mamour Diallo bi waaw boobu tamit mun naa la ko yónnee parce que boobu arrêté wu ma ko moom moo ma amul benn problème man xoolal bu Mamour Diallo bi fi ñuy toogee waaw ma wax la ma wax la ba pare soog la ko yónnee billaay wallaay tala Mamour Diallo bi waaw dafa wax ne moom Mamour Diallo ne ko mhm. aji foo demoon boobu fekk dafa fekk aji daw waaw ba mu demee tey xam nga ne lii ngay wax ne ku gisul aji xaw ma fan la koy xamee amul fan nga nekkoon mu a ko damaa demoon si nga xam ni mooy ci policier bu ko doon garde waaw këram la nekkaloon ak moom waaw waaw mu na ko waa aji léegi ñu waxtaan ñu mun nañoo commencé keroog moom moo fa toog ku tudd tonton ku tudd Viviane waaw ñu toog di waxtaan mënu ko mënu ko ñoo laa toppatool passeport léegi mhm. ndax lañ doon lijjanti lépp yaa ngi dégg mënu mhm. ko lijjanti boobu fu nekk ni ku la lijjanti passeport police bu ko def dañ lay tëj li nga muñ mhm. moo ëpp li ci des dañoo bëgg rek nga muñ am na nag loo xam ne yow sa niveau àggu fa yaa ngi dégg foofu sa niveau àggu fa loolu dañ ñu koy bàyyi ak ñun waaye lépp lu ñu waxante woon ak lu ñu pare woon a def incha allah maa ngi ci duma ci musa day kon nu ma la ko xee dinaa la dimbale sa tonton laa sa baay laa ba mu ba ci fin bi mhm. ci fin yow su fekkee na borom xel nga dinaa la ko yónnee de man maa la waatal ci alxuraan dinaa la ko man kay tax ma lay déglu nii yaa ngi dégg su fekkee borom xel a Viviane la ngi làkkanteeg moom séeréer ci suuf waaye ci olof bi ko làkk mu ngi koy wax na ko mhm. e eh, burus waaye jàppal ne comme sa xam nga mu toog ba mu ne ko ma defaral la café mu ne ko non café non non ma taalal leen ventilateur et les enfants jóg leen jóg leen ñu dem ci néeg bi bàyyi leen fi ñi defaral la café mu na ko mu ne ko non non ma taal clim mu na ko bul taal clim bul taal ventilateur bul taal dara mhm. xaaral sax ma fay sama téléphone balaa ñu maa dérange waaw te su fekkee ne borom xel nga xam nga ne am na la fa nekk am na la fa dem mhm. man maa la wax ci jëmm rasulullahi bi ma gëm man mhm. ak yeneen bii moom Adji Sarr moom moo ko yónnee dama ko yónnee waaye yeneen yi moom jël naa sama responsabilité même su may dugg kaso sax. Mm-hmm. naa ko arrêté mais def ko addee Sénégal. Mm-hmm. man la ko yónnee nii. baax na Baye Mbaye man kay loo ma ci yónnee dinaa ko déglu attentivement te dinaa la woo. maan ngi la koy bu Mamour Diallo maan ngi la koy yónnee nii man maa la ko maa ngi la koy parce que ñun dañoo nekk organisation boo xam ne dañuy dox ci droit américain parce que dafa am benn organisation bu ñëw rejoindre ci ci combat nag attention leneen di xew moo tax man de américain americain la dama lay wax foofu laa dëkk xam naa foofu bu baax mm-hmm. dama lay wax na la enquête Amérique waaw amul dara lu ko gis nga fay mm-hmm. dama lay wax lépp loo xam ne xam nañ ko ci dossier bi waaw suñ demee ba dégg ci leneen mm-hmm. américain yi duñ bàyyi dara mu seet seen intérêt rek la ñuy xool xooluñ keneen man mi la wax loolu kay kon xam nga ni man xam nga wax si caaxaan kon mu ngi noonu maa ngi nii di sama temps nii di wax ak yow donte maa ngi liggéey sax sooy coupé nii maa ngi lay yónnee ba mu woo Mamour Diallo bi waxam ak ak ak Gisaar Gisaar nag moo ko enregistré Mamour Diallo yóbbu ko amul benn problème man kay maa Mamour laaj na ko laaj na ko ndax da nga mos a wax ak MPF mu waat ci yàlla ne looloo amut mos a wax ak man hmm, baax na mais man jubluwuma ci Adji Sarr toroxal ko jubluwuma ci kenn man kay xam naa ci dimbali ko dama dama jublu ci yàlla xam ne su fekkee na sàngara ki kay jaay ku koy transporté ku koy def lépp l'islam yéen a bokk kon su ma demee ba nga xam ne ma xam dara te waxuma ko tamit ci kii te lii ma lay wax nii ci janvier bi la mhm. janvier bi laa ko yëpp man li may wax nii yëpp man nag man ñaari fan laa koy dante moom ñaari fan bu doon dama lay conseil man bu fekkoon sañ naa la conseil sëñ bi boo ma ci mayee ndigal waaw mooy kay am na ci yoo xam ne comme si yow yaa ngi koy laayo biir waaw yow ci boppam yaa koy wax mu jël engagement boppam. waaw mu taxaw devant public moo gën mu lay batale di la kii euh, bu yàggee mën na dem ba askan bi gisee la leneen moom comme am na ay responsabilité am na gëdd boppam. Mhm. Ah, comme en tant que sëriñ. Mhm. nga ko conseiller pour moom mu taxaw dëggal boppam. Mhm. ah man de sama gëm rek laa lay wax rek sëñ bi ñëw. barke Rasulaay noo tuddati sax. Euh, man Abdou laa tudd. Abdou Nguer waaw billaahi wallaahi tallaahi su fekkee yaa ngi dégganteeg moom waaw laaj ko ndax waxuma bay jooy na ko kaay ma delloo la ci askan bi ci lii nga nekk nii jaru ko mun naa waxtaan jël kilifa yi dem seeti leen waxtaanaat ba yëpp jeex ñu dellu ci jàmm war naa ko ko jooy wallahi laazim parce que man man dama dama dégganteeg dama dégganteeg benn liveur bu nekk France Mhm. benn xale bu jigéen damay bañ a tudd turam sax mu ne ma mbokk bu tudd turam waaw mu ne ma carrément Baye Mbaye dafa bëggoon a takk aji yow koo xam ne mosoo koo gis ngeer man mosumaa gis aji mosoo gis aji saar billahi wallahi wallahi laajal aji saar ndax mos na maa gis wala nga laaj magam faamara nekk na ci man quinze ans seize ans faamara mhm. Famara nekk na ci man quinze ans seize ans benn rek déggante ne Adji Sarr mosu ñoo gisante ci bët mos xam nga kañ lañ a wax mhm. ci janvier bi te suñ defee téléphone yi téléphone am bi numéro bi mu ngi nii ngir taal nañ taal kii wax ci téléphone ñetti yoon wallahi alazim ngeen billaahi li may wax du caaxaan xaw ma Adji Sarr billaahi mosuma gis billaahi sama àddina mosuma gis Adji Sarr Hmm. mais ñëw na téléphone nga dégganteeg moom téléphone laa dégganteeg moom waaye ñëw na def yi nga xam ni mooy formation bi ñëw na def ko nga xam ni mooy ci sababul fayda ci munde dëkk bi ñuy wax munde ah sababul fayda bi sababul fayda bi ñëw na def ko formation munde munde hmm. lii moo am mais aw ma lenn loolu ma fekk xam nga dafa am xorom man maa ngi ko bëgg a jël man doon jël man moo may daane parce que bande bande la woon jéem a ne waxuma ak waxuma ak waxuma ak Adji Sarr bëgg pour mu sa gis gars caaxaan dañ bàyyi seen xel yooyu en tout cas daal lii lu sérieux la loo xam ne euh, bu fekkee bu fekkee ne Ousmane Sonko sequt ak dara moom mbir mi demee nii ah man de man de mënu maa weddi ne mhm. mënu maa weddi ne mhm. waa ji tamit sama xel bu ñaaw xaw ma Sonko de waaye man pour man sama bopp man am na lu mu def parce que xale bi tamit mhm. su viol moom xam naa ne amu ci waaye relation moom am na maanaam sekk nañ dara daal si lu mel ne relation sexuelle affaire góor dara moom sekk dara moom man ba léegi mënumaa bàkkaar na waaye sama xel lim ma jox xam na nu fa demee. waaw parce que xam nga man man en tant góor. Mhm. yor soxna man damaa yor soxna. Mhm. Mhm. Euh, sama soxna bañ na ko ba huile bi muy maase depuis problème bi am yàlla mi ñu tiim xam ne daf ko dem jëndi. maanaam xam nga mbiru jigéen yeeg seen i gaaruwaale rek dem jëndi ko. di ma ci tànniwaale ay xeer. ay xeer. yenn saa yi mu ne ma kaay ma bës laag yooyu. mais dama xam ne. góor bu demee ba bàyyi fi kii am. jabaram dem ci beneen jigéen ne dafay faju te foogu du foogu du man dem naa fa yooyu noonu yëpp wéri massage yëpp mën nañ ko dama demoon vérifier ki man dama jël sama temps dem mhm. gis nga moomoo bi moomoo Cissé bi nga xam ne moo interview woon Adji Sarr mhm. Mhm. damay waxtaan ak moom man ñu bare bari ñi ci dossier bi damay waxtaan ak ñoom parce que bëgguma dox ci lu lëndam man du ma nekk ci organisation boo xam ne niveau international la man may ñàkkal sama bopp fayda wala may def loo xam ne après ëllëg man ces années dafa a dox ci dëgg mhm. Mhm. mais man bu fekkente ne ñoom relation kese kese la ñu sekk mhm. boobaa damay xam ne ñaari nit lañ mais comme cas viol tudd nañ ci viol rek man damay soxla leeral may dugg fu ne ngeer su ma ci amee lu leer ne Sonko daf ko viol ak li ma wax lii yëpp yëpp wallahi man aw ma kersa de du tere ma delluwaat ci aji jàpp aji si téye ko jiital jiital jiitu ci xeex bi parce nekk lu ma fi kooku nekk lu ma fekkee man affaire la chaque jour dañ may gis ma xuloo ci affaire génn duggaat noonu laa mel sama vidéo yu mujj yi soo duggee nga xool Kaolack bay sëriñ sëriñ bi di man naa tax mu gañi waaw parce gis naa benn vidéo booy dagg euh, photo xawma kan du sew man naa tax mu gañe foofu fekk nit danañuy dégg Amzoul mais xamuñ ko. Mm-hmm. xamuñ ko woon léegi ci coow lii lañ commencé dégg tur bi rek waaye xamuñ kan la. waaw man kay xam naa moom nee la bis ne que tey investigation yi lu ma ci xam man dinaa la man kay dégg ko man la. ñàkkuma fayda caaxaanuma tappalewuma maa ngi nii sooy coupé ci jot bii nga xam ne mooy Mamadou Diallo bi man ma yónnee la soo ko dégloo. moo ma di xel naa la woo. ak xel di nga xam ne ndax lii lan la dee waaye waxee moom. man suñ toogoon nii danañ ko yàlla dana def ñu ko parce man teguma ko ci sama téléphone dama ko def ci ay clé mhm. denc ko ay place ak place amul benn problème mais bee moom amul problème bii maa la ko yóbbu te man en tant que taalibe sëriñ man su ma sañoon mhm. maanaam euh, euh, da ngay may tuuti rek justice def liggéeyam gis nga les treize avocats de Pastef mhm. xam nga ñu ngi dix huit avocats xaw ma waaw xale bi mënul leen a tër bu fekkee xale bi waxul dëgg mënu mm-hmm. leen a tëj. dëgg la dix-huit avocat mm-hmm. ñu jàng ba yéen seen i am seen i diplôme jàkkaarloog benn xale boo xam quatrième la bàyyee école. Mm-hmm. bu dee fen mënu leen a jaaxal. man dëgg la sama xel lii la ma jox. dëgg la dëgg la. waaye nag dinañ déggante waat moom lu jaatu. incha allah amul benn problème. jaajëf ñaar man moom nee naa gars yi ku ma oo ma wax. man aw ma problème. jaajëf ñaar